sedd na seen xel dal na mboolem ku fi teew tey góor jigéen mag ndaw sa xol sedd na ndax lii nu gis tey musulu koo gis daana nag waaye musulu amee nii nu ngi sant mboolem ku fi teew góor ñi ak jigéen ñi mag ñi ak ndaw ñi ak fu waay mën a bàyyi koo nag ci turu chef de village yëpp ak chef de quartier yi di kontaan lool taxawaay bi ak organisation bi ak monsieur le maire lii nga nu ñamal wax dëgg yàlla musunu koo am nu ngi lay sant di la gërëm di la ñaanal yàlla yàlla na yàgg yàlla nga fi yàgg di santit imaam yi di jiital ci sant gi imaam oustaz Sine oustaz Sine boo yaakaaree ni imaam yi ñoo gën a sonn chef de village yi du noonu bu dëkk amul jàkka am bu jàkka amul imam du am chef de village li daj imam xalaatu ko daj dama ne imam yi chef de village yi ñoo leen gën a sonn fuuf bu jàkk amul imam du am kon noo ci njëkk te bàyyeegu leen ci kon nag noonu leenu yanu coono ne nu àndal te ñu amul ñaar dërëm kenn du nu sarax kenn du nu tàng am na ilimaan yoo xam ni wax dëgg yàlla bu tabaski jotee ñu jëndal leen ay xar di leen jox dara man sama imaam boog waaye waa dëkk man duñu ma jox ñaari dërëm fu nu mu sa teewe kii mooy sama seede toog naa grand sëriñ toog mu toog président de la république toog la ma tawatal chef ma tawal ko imaam yi mu ngi nii toog du nu bokk bàmmeel doom dëkk yàllaa leen boole konte nag nun fu nu jàmbate suñu mbir nu ngi jàmbat seen mbir monsieur le maire jërëjëf jërëjëfati jërëjëf yaa conseil municipal yi nga àndal yëpp ndax itam nag kenn mënul dara waaye mbooleem ñoo ñi lay jàppale nu ngi lay sant di leen sant di leen gërëm di leen ñaanal yàlla di ñaanek bu déwénee yàlla na nu fay fekk fii nu defaat ko fi def ko mu mel nii mbaamu raw nii lépp lu raw nii nag yombul ndax lii kat musu ba mu dalee am nuy dem puut di ko def ke maire puut lii musu faa am ñu ni ko def ci kër musa lii musu fee am kon nag yàlla na yàlla jëme mbir mi kanam yàlla nay sa njëglaay yàlla na yàlla jàppale la fi nga jëm yàlla na nga fi àgg bi jaay ni mu soo te muy sa njëglaay yaa ngi ko àndal ñëpp ñu dina dimbali maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaanal ñëpp ak fa waay mën a bàyyi ko nag di gërëm nag organisation yii nga xamante ni ñoo def liggéey lii di liggéey gërëm it géwél yi géwél yi it wax dëgg yàlla dama dama leen di xamal ni ñu jar a gërëm lañu ndax Alaaji Mor ca Ndaya Diop danoo mos di naafile ca Kaaba ga ba yàgg mun ma Alaaji Sàmb ma ne ko mun ma xam nga noo toll ci yàlla ma ne ko dee mun ma noo toll ci yàlla noonu la la yàlla toll ci yow lu tilim lu ne da ngay usub saabu akum ndox jox ko sa jabar mbaa sa mbindaan mbaa sa doom fóot ko waaye nit moom aw làmmiñ rekk koy fóot te li gën a jafe ci àddina baax ci sa daraja jële ngeen jëf yal yàlla fay leen yal yàlla jàppale leen yal nu yàlla dolli sutura ma ni maire nu ngi sant sa service bépp góor ñi ak jigéen ñi saa boo ñëwee ak loo mën a bëgg dañ ciy taxaw ba nga jot kon nag nu ngi leen sant di leen gërëm di leen ñaanee leen mbir mi nag jarul gudd di sant jigéen ñi nga xam suñu jigéen ñu rafet ñii nga xam ni ñu ngi nii toog wax dëgg yàlla lii moom ndar sax goonu cee jëlee dara am ndar ndara ngi nii toog jigéen ñi rafet nañu waajtaay yu rafet na col gi rafet na yiw nañu wax dëgg yàlla nangu na yoo tàccu jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf jàpp leen fii foofu la ndax taasukat ba dafa wax ne la nga jàppoon ba am lii bu ko bàyyee ti jig na la moom mar na ngi lay jàpp te duñ la bàyyi jërëjëf doom introduire monsieur Sarr commandant